كل شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani aleykum wa taala wa ci ndigalul sëriñ bi ak ci kàddoom yi nga xam ne yónni na ko ci ganam gi kon ginnaaw bu mu bokk yi fi teew yëpp di jël nuyoo bi di ko te teg ci loxol njiital réew mi président de la république Macky Sall di la dalal jàmm ci turu sëriñ bi yaag mboolem ñi nga àndal ñëpp te buñ ci tuddee soxna Mariam fay mi nga xam ne doom la ci sëriñ bi di léppam di ko am cofeel ci moom di di ci teg ministère de l'intérieur mi nga xam ne moo doon taxawu liggéeyu màggal gi ñu di la seere lay taxawaayam ci màggal gi kon sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu di sant bu baax di la gërëm rawatina kàddu yi nga xam ne bii rek fetliwaat na ma nee naa la ko wax ci bis bu tedd bii nga xam ne ci lañ jub si muy màggal Tuubaa muy màggal gi nga xam ne ci la fi sëriñ Tuubaa bàyyi ko woon dem liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa dem liggéey la aw xeetam muy liggéey boo xam ne ba muy dem yaakaar yàlla ak bëgg a xeetali bindeef yi ak bëgg am daraje abdullahi wa xadimu rasul rekk taxoon ba muy dem itam mu jaayante boroom akuk dogg akuk ngëm ne astaxlisu li nafsi lépp maa koy jagoo bokkuma ko kenn àndut kenn kenn kenn wettiliwu ko mu ne ci condition yu métti ba yàlla suñ borom def liggéey bu matt ba liggéey bu matee rek suñ borom xamal ko ne natt bi jeex na ak pay ci des ba àddina di tukki tam saa su bis bu del si waatee gépp may goo xam ne suñu borom mayoon na la ko dana dana ko dolliwaat ba mu tollaat noonu moo wax ne moo tax ba mu nekkee ci tukki bi la wax ne ijaal wujuuhi ila qawmi saadatana wal takshina yow ma xalqi niirana waxee tam ne lii aw silil la si uridu wan faay biyal wara yaa mu wax ni yéen amit faay kon mooy xéewal li nga xam ne suñu borom wàccee na ko Sénégal tey waxaat itam wax ne lii kon bikun sarmadan waccaal masiriya sa jaw falfara lil wara mislal maharimi kon nag yàlla suñu borom defee màggal googu jul ko màggal mu dem ba adduna sépp di ko wusi ba ren ji liñ ci xam ci ay délégation yoo xam ne bàyyi ko nañ biti réew ëpp na ñaar fukki réew du wéy kon nag loolu ñaan gu nangu rek ko indi kon nag ñaan gu rek mooy li am fii kon nag ñu ngi ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te ànd di jeexale kàddu yi rek nag ndax du gudd ci cant gi nga xam ne yóbbante na ma ko ci président mooy cant yoo xam ne sëriñ bi ci biir xorom la ko tibbi ngir ànd bu rafet bi nga xam ne ànd nga ko sa diggal moom ak jëflante bu rafet bi nga xam def nga ko sa diggal moom ñaan na la ci jiitu it mooy lim lay sant la yàlla mooy jikko ju baax ji la yàlla defal ndax nee na jikko ju baax mooy nungu dëgg ñaan te gis na loolu ci yow nee na bokk na ci taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne def nga ko ngir indi jàmm ci Sénégal ak indi jàmm ci réew mooy lii nga xam ne suñ borom defal na ko te li gën a jafe ci àdduna nag mooy dugg ci nguur ci jàmm génn ci jàmm ak ndam nee na lii nga def nag nag nga xam ne yëkkati gu rëy la la ci àdduna si yëkkati gu rëy la si digg Sénégal nee na nag moom yàlla boole na la moom boole goo xam ne nam la ko daa waxee rek kóllëre gi mu fasante yow du tey rek du ngóor itam nee na li fii mu ngi ci kaw suuf rek kóllëre gi saa su xëyee di yokk waaye du wàññi ko nee na loola nag lépp lu yaa ko jëmbat ci sa digg ak moom ndax fonk koo fonk jàpp koo ko jàpp def koo ko def kilifa néew na weer dugg ba jeex te yónniwuma ci yow ay yitte te lépp njaboot gi la te yitte yoo ci dégg dañ ca def ba def ci loo mën loola nag démb rek ci mujj loo xam ne neexut a wax ci mbooloo waaye waxtu ne yaa ngi seetu bëggam du ko dàkk loo jàpp ne mbégteem rek da nga def ko nee na loolu nag mi ngi la koy seere di la sant di la xamal ne itam nag Sëriñ Tuubaa am na lu mu waxoon daa bindoon wax ne anna man waasalanii laa li xararin dunyawiin fa innahu yakunu min al muqarrabin wa anna man waasalanii li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu maadaama xayyan képp koo xam ne ñëw nga ci man te àllaaxira kese tax laa jug yàlla suñu borom daan la boole ci njëkk gën a jege képp ku ñëw te àdduna tax laa jug itam nee na sa diiru dund yàlla suñ borom daan la ko terale kon nag koo xam ne ñëw nga ci Sëñ Tuubaa yaakaar ko àdduna ak na sam xel daal tax te xam ne sa giiru dund rek yàlla dinaa la teral kon nag sëriñ bi waxoon na la ma toog maanaam li ci sa kanam mooy dàqali ci sa ginnaaw kon nag loolu wax ba mu la koy wax waxi yëg-yëg la kon na sam xel daal di la sant itam nag ci li nga def ci dëkku Sëñ Tuubaa bi te lépp ma ci seere ci kanamam loo xam ne lu ma xam na muy lu wér ndax am nga fi fukki at ak ñaar ci ren waaye jëf nga fi jëf ju bari joo xam ne ku ko limoon tey dana ci bari sax lu ma fàtte waaye bokk na ci assainissement bi fukki at ñaari def nga ci lu mat ñeent fukki milliards juróom loolu jéggi fu rëy la kon loolu day mel ne bu demaatee eer rek assainissement gàllankoor yi ci dëkk bi dana jeex loolu itam def nga ci taxawaay def ci yitte def ci jom ndax assainissement day liggéey boo xam loo ci def weesu ko rek ñu fàtte ko waaye loolu lépp sëriñ bi gis na ko bu dee ci wàllu ndox mi li mu ci def ci ay forage ci biir dëkk Touba mën na fukki forage ak juróom loolu liggéey bu rëy la bokkut ak nag yi nga xam ne def nga ko fi mu tëli yu bari bi ci mujj mooy bi corniche bi ñu tuddee trente mètres bi ëpp na fukki milliards bokk na ci it projet yu mag yi nga xam ne def nga ko ba ci jiitu mooy Ila Touba bi nga xam ne mën nañ ñeent téeméer milliard di liggéey bu rëy bokk ci sa projet yi gën a mag ci Sénégal ba ca dolli ko waat mooy hôpital Cheikhul Khadim bi nga xam ne daal jéeg lañ ko indigré moom itam nga def ci xaalis bu ak la def ca mat la bu faw ba ca mujj na te gën a ñor sëriñ bi bii ci guddi waxaat na ma naa la ko fàttali mooy liggéeyu université bi ndax université bi sëriñ bi ba mu accès dafa wax ne sama yitte jëpp maa ngi ko ci jëmale ngir jàngal ndaw xamal leen ak toqi ba mu ko yëkkatee rek yéen a jëng ci njëkkoon am man mii nga yónni woon ci moom ne ma bu ma soñoon moo bàyyi ma tabaxal ko lépp ndax xam naa fi mu toll ci moom te état bi mën na ko ci ñetti at wala ñeent ba ma ko waxee sëriñ bi siñ bi wax la na mu ko gisee ne bu ma soñoon taalibe yi nga bàyyi ñu jëf ci waaye fa saasa nga ne lépp lu jëm ci tëli assainissement éclairage public lépp yaa ko def ba loola ña ngi ci liggéey ba sori na yemaatoo ci nag jëf jëng ci mujj jëfal mooy bi université bi àggee sëriñ bi moom xam nga ne la sëriñ Tuubaa waxoon rek katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi ila nasara abidil ma i wa tini moom noonu lay doxee du la du sas kenn du laaj kenn mu yëkkati lu ma juróom benn téeméer million dugal ko ci biir université bi ngir dund ko gone yi ba ko yëgee yëg di saa nga ne ko loolu kenn waruloo ko teg fas naa yéen ma ne ci sama war goru nguur danaa fexe ba def ci biir si bi situation yi nga xam ne ñu ngi koy def université bi ñu boole ko ci loolo nag muy jëf joxoon danga ko caa gàttanu ko defalee it lam la wax mooy loola Sëñ Tuubaa ma sa defal rek lii dana la ci beraatal sa genn payu bopp nag na sam xel mu dugal ci lu mat un milliard ci université bi ngir dundu gone yi ak di leen jor muy situation boobu def na ko ci loolu bi ñu tàmbali liggéey bi rek lam ci jëkk def mooy yëkkati un milliard def ko ci liggéey université bi te noonu loo ko defoon ci Masaalikul Jinaan te ñu bari yëguñ ko ndax lu ci ne ba mu koy jëf daa wax sëñ bi ne ko man soo maa yàllaa ko ku diggaa rek sëñ bi ko sëriñ bi ne kon lu mujj lii nee na la loolu ma sa defar sëñ Tuubaa li nga ko defaat daan la ci biraata sa genn poy bopp kon nag na sama xel mu wóor ma ne keroog wax na ma ci guyét ne ma dénk ga ma ko dénkoon sëñ Tuubaa wóor na ma ne moo ko may mujj rafet gi kon nag loolu na nga xam daan la topp ba faw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii doy naa dégg de jërëjëf Mbacke amin amin Mbacke wallaay lii kenn sëñ Moussa Abdoulaye Karam كل شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه